ñoo ngi lëlu ajuma ba tey daanaka tey mooy ñetteeli fan ñuy toog di pencoo ni ma ko waxoon sénégalais yi PIT nekk na parti boo xam ne parti bu démocratique la euh, diisoo na gëstu na natt na tolluwaayu àddina seet na tolluwaayu Afrique ak bu Sénégal euh, càmbar na yëf yu bare bare mu ngi ci phase bu mujj bi mooy muy tànn ñi nga xam ne moom la ñuy ñoo nar a jiite kuréelam ci juróomi at yi ñu dëgmal Euh, camarades yi nag euh, delloon nañ ma seen i kóolute sas ma ci diiru juróomi at yi bu ko yàlla dogalee naa continuer liggéey bi di ko defandoo ak ñoom ndax ñi ngeen gis fii ñu des ci salle bi di nas di nocci ñooy membre du comité central maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo yor dogalu parti bi euh, buñ la ci tànnee nag ci biir ne la jox nañ la seen i kóolute da nga koy yëg ne loolu daal lu diis la lu diis diis nga xam ne responsabilité bu rëy la ñaan suñu borom Euh, ñu mot loolu nga xam ne yaakaar nañ ko si ñun ndax képp kenn képp si ñoom ku fi toogoon ngay jigéen ngay góor nday ngay daw ngay mag mënoon nga tey jiite parti l'indépendance du travail ñu tànnee kenn si ñun kooku dafa war a yëg ne rek euh, ñooñu ko tànn am na luñ ko sas. ñun suñuy mbir moom gis nga ko dañuy toog dañuy waxtaan ku nekk benn baat nga am euh, dem nañu ba dañoo woote am na ñu doon xëccu euh, yàlla def ne man mii daal la jël teg ma si kanam ma di ci sant suñu borom di sant camarades yi leen ne sama kéemtalaay kattan dinaa ko def pour parti bi jéegoom gën a gën a tar pour mu gën a jëriñ mi ci ubbite bi euh, du sama bilan man kot suñu bilan la ñun waa PIT nee naa euh, bariwuñu euh, coow bariwuñu li ñuy dégg nii ñuy wax bés bu nekk ci tasukaaru xabaar yi waaye nag wax dëgg yàlla semaine semaine weeroo weer atoo at ñu ngi liggéey ñu ngi gëstu lii xew si réew mi yëpp ñu ngi ci teg suñu loxo am na bërëb yoo xam ne am nañ fa ay ndaw muy assemblée nationale wala conseil des collectivités nekk nañ ci gouvernement bi te foofu tam ah ñu ngi jéem a def lu ñu mën camarades yi tam ci gox goxaan ci dëkk yi fépp ñu ngi taxaw askan bi di jéem a def lu ñu mën donc suñu bilan euh, defe naa ne rusuñu ci li ñu présenté waaye namm nañu jéem a yokk jéegoo def gën a am solo pour suñu askan suñu réew. dogu euh, ànd ak euh, nammeel bu rëy rëy boo xam ne pour fexe ba suñu réew jëm si kanam fexe ba PIT gën a taxaw euh, raayam gën a yekkeeku ndax loolu moom mu lu ñu sas am na ñoo xam ne ñu nag ñoom ñoo nekkoon yàlla def na ñu dëddu li ñu war mooy ñun ñi desandi ñu góor góorlu ba liñ doon def mu baña naxasaay càmbar nañu bu baax wax tolluwaayu réew mi natt nañu bu baax baax fi ñu féete ñun dañu bëgg maanaam camp cohésion sociale camp démocratie stabilité ak paix biir mu gën a yaatu suñu làng mooy benn bokk yaakaar ci biir benn bokk yaakaar lañu nar a waxtaan xool yan pexe lañ mën a def ba am kenn koo xam ne moom mooy suñu suñu mbër moom moom la ñuy nar a ngemb euh, loolu lañu bëgg nag mu antu waaye nag wax jooju di ñun rek ñoo ko yor ñun nag ñeneen la en tout cas dinañ ci euh, ñun teg suñuy xel ak suñu xalaat waxandoog ñi ñu ko bokk yaakaar ne peut-être que bu ñu déggoo mooy di gën si réew mi PIT ci boppam bi mu waxtaan bi jëloon na hypothèse ne est-ce que day présenter candidat li ñuy wax ba mu wóor mooy ñu xëccoowuñu pour jiitee réew mi fi mu nekk nii ndax nag euh, am na yu bëree bëri yoo xam ne moom la ñuy sóoraale camarades yi boobu hypothèse dañ ko génne waxoon nañ ko sànq cinq ay cinq liggéey la cinq ans jéem a yokkeeku cinq gën a kawel drapeau payté pour njëriñ Sénégal liggéey la euh, ndax suñu postes yi du ay poste prestige au contraire ay post combat rek ni ñu koy defee ñu nag euh, ay militants lañu d'abord de base ay militants réew mi la ñu doon si soxla askan mi lañ namm daw taxaw def si li ñu mën